الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين وفي الله سبحانه وتعالى وفي كل سلمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mbokk yi ñu ànd am ni xaaroo bi doon jàng ni sunu fuqaa ba doomu aadama yi doon dund ci dund boo xam ne ci dal la yàqu tey mbon mbon soo boobul woon ci xol ñu gëm yàlla nit ñi toogaguñu woon àddina sa tax ko ba mu mel ni mu mel ci ñoom ba boo leen gisee da ngay foog ni jaaru ci yoon bi jëm àllaaxira da nga xam ne mu mën te dafa néewoon maaxaay di bàyyi jamono ba nga xam ne doomu aadama yi lu ñu mën a am dajee seen borom am ngërëm moo leen ko gënal jamono joojee ni bu yonent bi mu taxaw alayhi salaatu wasalaam ci kaw minbar jàng saa bii di suuru xoor defee ko xutba su noppee dootul aajo mu ngi dañ leen ay wax ci julli la waroon loolu mooy booba xol yi dañoo jokkoo ci seen bopp li ci dégg jox li waroon loolu moom mooy doomu aadama yi jamono jooju yàqu tey àdd ak man-man boobu soo bëggul woon ci seen xol Umu Hisaam bint al mu ni man day bari koo xam ne yonente bi daf daan bari lu mu daan jàng suuratullah ci suuf bay jumaa fas loolu sax moo tax ba moo ko laal kon loolu li ñu war a mooy yonente bi daan ko jàng lu bari sallallahu alayhi wa sallam saar bi nu mbokk yi saar la mu yonente bi boo xam ni ak niitukaay ñeel kenn ku gëm yàlla ku ne ngir mu man ci nag mbiri àddina man ci nag mbiri àllaaxira saa la loo xam ne wallahi bu fekkoon suñu xol yi yàqu te ci ay nit bu fekkoon ne suñu xol yi mi ngi dund comme ni yàlla bëggee xol bu gëm yàlla dundee noonu nga xam ni ngëm yàlla da cay nekk su ko defee bu alquran nekk te dafay nekk nuurun ala nuur nga xam ne yahdi llahu li nuurihi man yashaa su boobaa saa bii de doomu aadama bu fekkoon moom rek laa ci alquran da ko dee dëkk na am xam ne bu ñu xoolee saa bi قال وقد أنعمناه ابن القيم رحمه الله عليه وكذا يرد لا تستطيع بفرجان سوء الأرجوة مثلا أي كي وقبل كان في ورد وطارة أيضا بخير سنبر تلك إلى الإنسان حكم الرواية كان في مرمي من نظام عالم هم في نفسه ak jamono bi mu nekkee soxna na ko am ne mën naa sax ci mu jàmm muy wéy wéy mu ci dem te du ko yëg nga xam ne nekk ku dara lam yakun shay'an mazkura doomu aadama di dem ba mu yàgg mu daal di dugg ci biir ak jigéen ñu dem mu yàgg mu tàmbalee soppee ñu dem ba mu yàgg mu tàmbalee nekk li yàq ñu dem ba mu yàgg suñu mu mel nii mu mel te màggatul ñu dem ba mu yàgg suñu borom xool te woo ñu dem ba mu yàgg suñu borom def doom ci tàmbalee tudd ci biiru ndey bi ñu ne ba yaatu suñu borom daal di koy génne ci biti àddina mu yaatu ci moom lool mu lool koñ lool suñu di ko seet ba mu xëy màgg loolu yëpp suñu borom bind ko ci biir saa doomu aadama fi mu jaar ci biir dundam nag ak ya ko fay gaar ba keroog muy xëy ñu xam ko sànni ko suuf ko yëpp suñu borom suñu borom leeral la ci biir saa suñu borom leeral la ci biir saa bi al qiyaamatu kubra wal qiyaamatu kubra xam naa ne ci law jooju nga xam ne buñ fa yeggee li booba ay armée ngay tudd ñun ñëpp ñu ànd ko bokkatu benn place rek amul yëkkatiku amul siggi amul jaaxaan amul tënn waaye fa ngay tëdd rek ci xaar Allah ngay di wax yegge loolu su borom moo ko ci xaar su borom subhanahu wa taala wéyee ñu ba ca àllaaxira ju mag ja nga xam ne buñ fa yeggee moom mboolem réalité yi ñu xamoon yi daw ci kaw suuf benn ci yooyu nag du mën a wax àllaaxira ndax yoolee dundu koogee bokkul suñu borom nekk ñun nañuy xisaabee jaar ne ak nam leen di fayee ba kenn ku ca nekk nag war a xam sa place ñii jëm àddina aw ca watet lay door la ñii jëm sawara jëm ca watet kaamoy ba suñu borom nekk ñu la nga xam ne mooy xaar ñi ko gëm yàlla ñi ko gëm ci xiiti xéewal ci àddina ja nga xam ni bët mu gis lu ni mel nox bu dégg lu ni lu ni mel xol mu dugg xaar ba def lu ni mel suñu borom ni lii kat li muy neex neex kat maa ngi leen dencal lu ngeen xamul fasrahu maa yashaa'uuna fiiha wa ladayna maziid suñu borom neen suñu kër safaan la ak liy xaar doomu aadama ci teeri mbugal loo xam ne benn wàllu dafay niroog moom te moom fii ci àddina sax mënu ko déglu suñu borom wax ñu la nga xam ne moom moo fa nekk ak lay tax nit ci dugg fa muy juróom-benn melokaan yoo xam ne benn bu ci gën a bon sa morom lay géeral yooyu sunu borom leeral ni mooy tax nit ki daal di koy dugg amsiya bi jahannama kulla kaffaarin anim kon kat ku bon li nga xam ni melokaan yi mu njëkk am mooy ab yéegal la kaffaar ñaareel mooy anim ñetteel mooy man naaimul xayr ñetteel mooy mu'tadin murid ba ñett mooy alladi jaala maa allahi ilahan axar mu juróomeen jikko sunu borom ni fa alqiyahu fi l adab shadid xuloo yaag coow yi nga xam ni doomu aadama bu sindi bi àdduna dañ koy def ba ñu war a àttuwaat di xam kii nekk ci dëgg kii nekkul ci dëgg suñu borom muy tëj seen seen gémmiñ yi laa taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id fii kat du barabu coowukaay fii barabu fayee ko ay jëf la fii kat du barabu fayee ko coowukaay ay xalaat waa fii barabu jël liggéeyu liggéey la fii kat du barabu ñuy négocier waaye comme doo négocier weer na muy àddina li am kay mooy seen tool yi nag ki nga xam ne kenn ku ci nekk rek doo fi fekk lu dul la doon jël te lu ko jiitu suñu wax ne ñu ne doomu aadama li ko wër ak malaaka yi nga xam ne ñoo ko naan ba bis ba nga xam ne ci la malaakam dee di ko dikkal suñu borom yóbbu ànd moo xam mu fekk suñu borom dem ci kër gi dikkal ndax wa inna al axirata wa inna daar al axirata hiya al xayawaan wa ci kamal kitaab bi mbokk yi borom bi subhanahu wa taala di wax al quraan al majiid بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافر هذا شيء عجيب loolu maa ngi lay dañoo amul jaaxle mais li ñu jural jaaxle bi mooy ñoom dañuy laaj seen bopp ni est ce que bu ñu baaloo ba seen yàlla daal di lëmale ci biir suuf si est ce que yàlla dana am kàttan pour seetaan bi allahu akbar suñu waram ni ki nga xam ne moom moo seen tool te dara amul nga xam ne comme yëwul seen la xoolee wu ko kenn dafa jékki-jékki rek sa xam-xam bu yàlla defal nu ñu doomu aadama kooka ne ku am kàttan la ci daal di xollawaat doomu aadama bi faatu woon tey sa ko bu am woon loo xam ne loolaa dina yow ko suñu borom la fam suñu borom ni gars yi ñu yor na ndax bu ñu faatoo ba nëpp ci suuf si seen taw yi sa daaro seen yàq yi seen peeku daal di gañ seen yàpp yi suuf si lekk ko sax yi alors tey moom mënta nekk ñuy dégg wa daal di lu waral ni xas te xam ngeen ne xas li taxqiq dafay firndeel tey dëggal te yàqu ko ba lu ma am wér la mu ne qad alimna ma lahu sultan minhum loo aadama yi nit ñi lu suuf lekk ci ñoom rek ma xam naa ko yàlla subhanahu wa taala allah lépp loo xam ne suuf lekk na ko ca yaram yàlla mu lu tolloo lam ca lekk ak lam ca lekk sax xam naa ko mën a yow nga géej waaye indana kitaabu xaqiir am nañ téere boo xam ne doomu aadama yi dañuy bari bari bari tur yi ñuy nuróo nuróo nuróo dëkkuwaay yi dañuy wuute wuute wuute suñu borom ne am nañ ci yéen dëkk boo xam ne ñëpp ko def lii ci ñëpp ko def tey dara du la manqué suñu borom ne la kese bu muy xaq ina ma jaahum fa hum fi amrin mahid ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen ci àllaaxira dëgg dëgg ñoom ci état bu nekk lañ nekk ndax mbir suñu borom ak ni mu noté woo ni mu organisé woo nga xam ne ci gën a noté wu ay mbir ak ci gën a organisé wu ay mbir fii ci kaw suuf kooku dañoo fàtte ne jaamu suñu borom la dañoo fàtte ni kooku cox ci mu yore ci man suñu borom ko ko dégg loolu war naa tax ñu xam ne walillahi masalu taala misaal mooy tax rek ma ci gën a kawe suñu borom am waaye doomu aadama yi léeg-léeg suñu borom dafay wàcce dimension bi ñu waxee ñoom bu ko waxee ñoom ñu amul jéegi-jéegi ndax nit bi ko yàlla dafa yekkal ngir mu mën koo jëriñoo suñu borom yi bu fekkee ni feeti yi xew ci jamono avancement bi nga xam jamono avancé na ko nga xam boo yeewoon tey ñeneen doon ci armée ne téeméer at ci gannaaw ñoom duggam ni si mooy àddina bi ñu bàyyi woon ndax avancement bi ci am ci diggante bi loolu nag léegi armée àddina te ki ko defar ak jaamu ci jaamu ci borom bi mbokk yi loolu waru woon a nekk lu jéem ak doomu aadama waaye li ko mën leen mooy jënd bi suñu borom bi suñu borom bi joxe misaal yoo xam ni misaal yi kàttan la misaal yoo xam ne misaal yu jekku la misaal yoo xam ne misaal yu wane ne kii kat ëllëg dina la nekkal di ñëw ba moom afalam yanzuru ila samaa'i fawqahum kayfa banaynaha xoolal kii naaw day lool kii la yëpp ay téeméeri téeméeri doomu aadama loolu mënu laa jaar waaye la ko féete ko muy asamaan nga xam ne ci kanam lay jaar moom suñu borom ni ci la xool ko naka la ko yaatu lool jant bay fekkee ba ko jant bay tawee ba àddina tàmbale ba ba àddina ñam mu nekk bind rek ñu dàq sa kaw rek séer te amul lenn loo xam ne téye na ko ci ab côté ci lu doomu aadama yi yëpp ak lu mu gisul nag amul lu dul yàggul kubra bi loxol kàttan suñu borom subhanahu wa taala moo ko téye wasamaa banaynaha bi aydin wa inna la mufiun asamaan si ne yàlla ñoo ko tabax ci kàttan ba pare ñoo ko taal ba mel ni mel nii suñu borom ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ما لها من فروج xanaa yéen xanaa li ko suñu borom tàllalee ak ni mu ko bindee ni mu ko téeralee taaral ko ay biddew ak ay weer ak i jant ak jant yàlla benn ndox wala benn bërbët boo déggee ak li la fi yaatu yaatu yéen boo yeewoon ne jiitu nii mu mel nii yeewu waatee woon noonu la ñuy fekk melal ko wala ba suuf si ngeen di jot bi nag seen tabax ci kawam te lu waay am rek teg ko ci kawam ngay dox ci kawam bi bëtagul suñu borom wal arda madadnaha suuf si ñun yàlla ñoo ko tàllal moom mel ni mel sànni ñëwee fi nekk wuur fi nekk jàngi fi nekk joor fi nekk ban fi nekk jeey dara fi ko suñu jeex fi nekk ay montagne fi nekk ay wax fi nekk ay ñuul fi nekk ay weer te lépp suñu keppaaru kàttan suñu borom bi la nekk suñu borom bi wal arda madadnaha dina ko tàllal wa alqayna fiha rawasi dañuy samp ay montagne wa anzalna fiha min kulli zawjin bahim mboolem gàncax yi fi sax suñu borom xeet yi nga xam ne dañoo wet xeet yi forom xeet yi safkaan yi dañuy leer mboolem xeet yi firme yi sax ci kaw suuf si suñu borom yàlla mën ci ko fi doomu aadama yi mboolem technologie bi koy tey di jël gaz bi mu gën a ci dem romb fexe ba garab gi ñëwee ñu ñaari yoon ci at mais loolu yëpp rek war nañu yëpp parce que def-def la ci kaw def-def jaamu mi ngi leen seen waay boo xamante ni rek dafa desee ne am na seen ba mu yegg juróom yi ñu yóbbu yéen sa béy di ko defal ay couleur vert noonu defoo dara parce que liggéey ba dëgg dëgg dëgg ko def mooy ko keneen comme keneen yi ñuy defar fexe ba def yi nañu ñaari yoon ci at mais lu doon meññ trois mois ñu fexe ba muy meññ quinze jours rek yooyu yëpp dañu di ko am soxla ndax baax ko dëgg dëgg mooy def def suñu borom ndax matière première yi ki nga moom nga xam ne bu ko téye woon kanam dee da doon lu mu keneen matière première yi bu ko doon téye woon waaye du am am jiw ba mën a wax nii kat naa ko soppi mel nangam fekk yëf jàmm nga soppi ko wala nga àbb ko jox ko kuréel bu mu moomul loola jàpp naa ni ñëpp a ko mën kenn ku nekk ak fasamam na ñu sopp rek day doon borom subhanahu wa taala ne wa ambatnaa fiiha min kulli zawjin bahij mbooleem xeeti meññeent yi mango yeeg orange yeeg mandarine yeeg xeet yi ak doomu aadama yi tey ñu ngi koy jëriñoo te ñu ngi génne ci biir suuf si suñu borom yi ñoo ko def moo tax mu ne wal awa wa wa samaa'i banayna bi ghayri wa inna la muslimun wal arda farashnaha fa ni'mal mahidu suuf si yàlla moo ko tàllal ba mu tàlli deret ma mel nii mu mel nga xam ne dafa neex a jóg lool suñu borom mu ñoo def rawaati wa ambatna fiha min kulli zawjin bahid li lépp nekk xam sa taw wa dhikra li kulli abdin munib lii lépp ñu mën yàlla def ko mooy ñun ñi gëm yàlla bu ñëwee moo leen ñu xool ci yëfi jàmbur wala ci coppam yëfi jàmbur soppi ko waaye dañuy xool kenn xam ni suñu borom xam ko la tal def ak ngir ma nekk yiiru xam xelal mi di ci maam ba mu naa dana def ak bëtam mu yaa yëf yi wàññi yi kat léegi ci yàlla moo ko def ah ci yëf lii ci ko waaye xam nañu di di di yëf ko la ko nekk ci kanam mooy loxol càttal ci def ci nga kenn gisu ko waaye xam nañ ne innahu ala kulli shay'in qadir kii lu ne la mën naa koy bëgg bëgg sunu waram ni wa nazzalna min as-samaa'i maa'an mubaaraka ñu wàcce ndox mu barkee ci asamaan ndox mu taw ndox moo xam ne comme tudd ni mu soree te boo dee ci suuf rek rek tox ko te boo dee ne loolu kenn bëgg bëgg génne sunu waram ni ndox moo xam ne mu barkeel la ndax lay wala di barkeel na mooy boo jëloon sa yoon wala say say say jiwoo wala say say say oto yu mag yoo xam ne da nga koo def ba mu fees nga fab àll bi roote roote dafa doon xol fees mu tooy képp ñu may la juróomi fan nga xool ndax lay tax dana bokk bu xaw lay tax déet duñu loolu moo tax suñu borom ñu baax maa kay fa amatna bi jannaatin wax alxasim yàlla mu wa taala ay jardin yi ay xeeti mandarin dëgg la am na solo waaye boo ko nee jël yàgg mu yàgg yéen ay pomme dëgg la ñu baax waaye bokk nañ seen yàqu bu yàqu yéen ay léegi banaan waa baax waaye bokk nañ seen yàqu bu yàqu su war ni fu ma wutalee loo xam ne boo ko dencee lu yàqu bu yàqu muy wax xasan xafiid ma wutalee kaay bu ñu tuddee kër moo xam ne xafiid xafiid mooy dañ koy foofu ba noppi ren bu déwén loolu la borom subhanahu wa may na lu tuddee tey waaye pour ko gis a dund gën a teg ndax moom yëpp indi ak li nga ak li nga ay responsabilité bi yëpp quarante mille lépp wala li ngay dundee tey ñu ngi li nga war a dundee suba ci dara nekk ndax mbirum wërsëg moom moo ko yore su borom yi war naa la baal di xool jëlal genn garab rek nga joxe ñu misaal muy kàddaam loolu dafay wane wàcce bi yàlla wàcce dimension bi ñu wax ba doomu aadama ak déggam gën a xóot ndax aadama yi kat ñu amoon wàcc su ñoom tàngaram mooy garab bu gën a bii bu gën a bii la ñoom kon kat di wax garab yi te aadama nga xam ne da nga naan doon bu mu doon suñu waroon ni yéene wala nax la sa garab gi sax sa mbir dëkk muy tàngaal ndax ñoom laa war mu wàcc ñoom xaala ci faati ñi ngi joxee ba rek buñjee ko jëm kaw laa xam mën naa koy te yàlla tëgg ñu nit ci ci guddaal ngeen teew suñu waroon yéene si xam dinaa daal yii yëpp dama ko def ngir wërsëgal gaal yi seen waa xëy naa di kii man la tax ay ko ka dara dëkk bu dee boo xam ni ñooñu jàppoon nañ ni rek moom bu yeboo danañ ko noonaani sa taariya ndax yëpp bi lu baax suñu borom yi dëkk boobu yi sawal leen pour koy leen ñu bay yëpp yi mel ni lool ñu góob am ay sawaat yu bay bojj am ay saako yu bay suñu borom yi yëpp sànni naa la yi lépp sa moo dëkk wa ahyayna bihi baldatan mayta ma fekk suuf su deewoon suñu borom yéen dafa gàncax bu gert ñu dem ba yàgg bu sol suñu borom wër ngi ne suñu gis nga fi yàlla jaar ne ba ñu xëy ñu nawet wàcc na ba ngay dem yóbbu kënd def ci tuuti dugub nga bay te ba mu def nga andi keroog di ngay góob nga ci ay sabar yu bari xale bu ci léegi muy ñëw ci sabar muy ñëw ci ay saret ñu teg ci kër gi su borom bi ci def lii ba gàncax bi tooy ba xëy wow te gaari la ko wuj mooy ñu ne dund ci kon bu ñeen bu ngeen duggee ci marché dafa nangam daya di dënnewu bëgg leen bëgg xalaat nga yëndu su borom ba gën a dëgg loolu su borom li ñu daal yi bokk na te kat dara soxla ñu xaw ma mooy seen histoire moo xam ne waaw waaw xaaral na si wala muul gars yi kenn ñu ne waaw lii rek xamul ñu ne waaw waa ànd boobu dina aw ñu ne waa muul lii la ànd yi dégg na ñeent lii xamul ñu dégg na ñeent ah mu ne waa muul mbokk yéen yàlla muul ya ñi nga xam ne ñoo doon biir góor jigéen ña ah dégg ngeen ne suñu borom ne waaw ñëpp suñu borom tudd leen ah wa ashaab al-aykati wa qawmu Tubba ñoom ñëpp kullun kazzaba rusula aw anni kenn ku ci nekk ba nga dégloo histoire fan la mujj xanaa kay doon góorgóorlu ci kaw suuf ñi dem bay diir mag yaa naan man ashaddu minnaa quwwa amul kenn ku ñu kii sax doole yàlla ñu mel yàlla sax suñu borom yi awalam yaraw anna Allaha allazii xalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa xanaa dañoo fàttali kenn mu tàkkoon ba ñu bëri bu mel ni mel koo kenn sa bu gàttal ko moom kay yéen a motaatu yàlla xëy na dina jibaale bu ñu doon faral di dañ ca kontaanee di fa ñett ay kër di ca dëkk kontaan lool yéen a def sax ba mun a di kulli dañuy ay aayal saabla tuur farat bu mu gis mu faratee rek di dafa fonkaay wala tamit du dama faa ne ah am na mu tax lu tuur way daal fasum fasum jabbaari yi ñëpp suñu borom muy faagaagal naa leen sa xaq wax yi comme faagaagal nañu jógee ñu ngi ci biir tuuti moo tax ñu ne yaakaar ne abaama yi naa leen wax ah kon da ngeen yaakaar ak lii ñu ne ñetti lépp seen xel jox leen lu dul yàlla kon dafay tële amul kàttan pour dekkalaat nit ñi ba ñu melaat ni ñu meloon ñëw ci kaw suuf ah su boobaa muy ban bu ñu lan ci ñu xam mooy wala ku ñàkk xel dëgg mooy loo xam ne ginnaaw bi ñu ko nettalee lii lépp moom ñu ngi amul sikk sàkk ci yàlla xam dana dekkal nit ñi àllaaxira foofu nag xam-xamu njëkk na kenn suuratul Qaaf doomu aadama bi nag tàmbalee xalaat ci boppam te yàlla naa ay kat wax dëgg yàlla ak xolam mi ngi tàmbalee tooy ay yëg dëgg commencé di ñoom jeeku nag ñu yëg ñu mbir ñi ñëpp ñu ñëw ñu dégg nag ndax seen bay àddina yéen kenn ci wax def ci discours boo xam ni doomu aadama yi ñëpp lay jàpp seen xol waaw fa kay fa la ibaadu bi suñu borom subhanahu doomu aadama bi nag tàmbalee nag léegi xalatuma nit ñi xalatuma technologie bi yi xew léegi yi nga xam ay misaal la yu waroon ñuy doon pour xam sama bopp ginnaaw ba nga def nii ko ba xam ko topp nag ci ñaareel ko xam suñu borom bi wala xam xalaq al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu ah léegi nag li nga ne yaram nit ñi nag léegi kenn ku nekk sa bopp doy na suñu borom bi maa ngi ni maa la bind nga ne waxoon kay gëm naa loolu kay maa ngi ni wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu li nga xam ne mooy nug nug ci sa biir xol man xam naa kenn ku nekk ci ñun ñi jàng ñëpp kenn xamul ne sama xol dugg yàlla subhanahu wa taala man it xaw ma kenn la mooy li xaw mën naa am na koo xam ne mi ngi dee ci projet jiw boo xam ne yàlla am na tool bu ko woon ci li wax mën naa am jullit mi ngi dee ci caay-caay boo xam ne yàlla am na tool amal fu la ko fekkee fam waaye suñu borom rek moo ko xam suñu borom rek moo tax ñu am ko ci ñu xam ne yow yi gis nga su tibb xol te bu mu xol bi nga xam ne bu ñu ko tibb nga ni gën a dee suñu borom ni man maa la ko gën a jege suñuy malaaka ñoo la ko gën a jege malaaka yi nga xam ne bu jël ruugi da leen la fépp yëpp la suñu borom suñu borom bi ñoo la gën a jege da seen baat yi est ce que gëm nga loolu est ce que gëm nga ni yàlla moo la gën a jege sa xol bi li nga wax te di ko ne balaa nga koy suñu borom am na wa asirru qawlakum aw ijharu bihi leneen te taw foog naa nga yow suñu borom bi innahu alimun bi daati sudur yàlla mu la gën a jëm na xam da noppi waaye ci saaga saaga yi naa ko saagal ah soo yore la sax ci bàllam moom it dëgër di dem doomu aadama yëpp jàpp ni yiw lay doon léegi lan moo ci ay caay caay yàlla rek ko xam te suñu borom ko ak li nga bàyyee te mooy li nga def lépp tànk yi ngay def moo ko moom yaram ngay may moo ko moom fexe yi ngay jëfandikoo moo ko moom waaye dafa yaa ci suñu saa ndax koo xam ne ci dina ñëw du moom mooy songanteeg yow wala muy naatnatee bu këcc la déedéet suñu borom day yebal am ndaaw rek mu jël jël solo bu simple du ca natt du ca yàq dara ñu daan lay tax ba nga dëgër na daal di xam ne lépp li mooy wote dëgg mbokk yi doomu aadama yi kan moo leen wax ni ci faatu yàlla ko kan moo leen wax ni ku faatu am bu ko war a dugal lu def suul lan moo tax su dem ba faatu ñëpp bëri ay yéen parce que xam nañu bokkatul fi ñu jaar ba gëm lii fi ñu jaar ba xam lii mbokk yi bu doon jàngal ko danañ gëm la yeneen suñu jàngal ci biir bànqee suñu borom subhanahu wa taala ne إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال dana ñëw fekk boo xam ni malaaka mi fay ko dana teg lay yoon nga xam ni loolu def ci lu baax bind na yàlla ko def ay mbir yaakaar ne yu baax la dafa di bind na ko fekk bind ko parce que dama koy def seen yàlla moo yaakaar ay yu baax yoo xam ne defoon nga ko defee bind nga ko fekk bindoon na ko waaye dafa bind ba rek xaar ko lu tax mooy xaar ko parce que da ngaa def lu baax ba nga wër ko defaat lu ko yaa suñu borom yaa keneen dara ca càmmoñ nag nga xam ne def nga yu bon yu bari yoo xam ne ñu ko bind nga def ay yu bon yoo xam ne tuub nga ko te yàlla baal na ko lu tax parce que nan ko tuubee noonu ñoom ñaar nag keroog dañuy daje ndax bu nit ki dee dund altine bi am na koy talaata am na koy alal ba am na koy alxames am na ba tamit di jeex ñu boole koy wa def ko ñetti benn koy bu at mi jeexee fa ñuy wax ni fala xam mbir ñu jeexee ñun la gaaw a profité xam nga bisu araba tuubal gaaw xam nga bisu araba tuubal ko bu yàlla ñu ne ma ne yow jeex na ñu leen leen koy def ko benn gis nga doomu aadama su baaxoo ba biir àllaaxira fooy yooyu la ñuy copier rek inna kunna nastanbiru ma kuntum taamaluun wallahi mbokk yi machine yii machine yii nga xam moom la ñu gis tey ñuy photocopie di yéen doomu aadama yi xool suñu borom moom waxee lu leen moom inna ñu yàlla kunna nastanbir ñu doon copier di photocopie di photocopie rek loolu laa ko gisee inna kunna nastanbiru ma kuntum taamaluun li nga doon def lépp ñu ko doon photocopie day booyee doomu aadama bu liggéey àllaaxira nag foo ñu bàyyee dafay soxal dañ koy jël yëpp ñu ko ñu ko teew ak ci koy bi su ko defee ñu daal la koy jox wa kullu insaanin alzamnaahu taairahu fi unuqi gis nga àllaaxira ku fa nekk la lay dugal safara bii ba lay taatal biir safara yàlla du la ko dugal mukk lu ko jël ko ci ñu nangu yeew safara lu tax ndax yàlla fekk la la ko jox wala ni la loo koy jël ñii na may naa la liggéey ba ñii doomu aadama bu am lu muy ñii képp wax ci daal jàppal sa téere jëf ji kafaa bi nafsika yow alayka xasiba say jëf ñuy toll am mbooloo ay avocat yu toll ay sëriñ ay kii toll na àtte jëm ko nga mën ngaa àtte sa bopp ndax kat biñ ne iqra kitaabaka yaa abdi ala maali ah jàngal sa téere bi jëf nga yaakaar bi defal naa kat kenn yaakaar bi dafa mbir moom rek lay dégg ah nga xool nag ndax am na leen lu ñu di dundaloo déglu wa illaa am na loo defal ci lu baax dinaa di koy sànq suñu borom ni leen inna allah laa yudiiu ajra man ahsana amala mu jaaree ko mu war a jaar ci kii jàpp ko ni ma fekk ko suñu borom subhanahu wa taala bu ko jànguloo téere su boobaa mën naa àtte boobu suñu borom teg ci wa jaa sakratul mawti bil haqq dalika ma kunta minhu taxiid lii na doon xaar ñun ñëpp mbokk yi ndax ku dundal sa baay mu génn àddina balal dundal sa yaay mu génn àddina balal te xam nga ni ñoom loolu ëpp nekk ndax bi ngay dund dëgg leen nekk te kii dund am daa yow benn nekk daa yow benn mu yàlla ñoom ñu lay gerte da nga toll ñi nga toll ñoom ñu lay nga leen suul ala wa kama tabiata yowma janazatan wa yowma insha allahu yasriñaw comme ñu doon jiite ne ay ñëw di suuli léegi ñu gis dina ñëw yow dañu daal di suul nag wa kullu ibn unsa wa in qaala salaamatuhu yowman ala aayati xadbaar mahmudu doom joo xam ne jigéen a jur ak lu tax fan gudd gudd yéen a gis dina ñëw dañu la sëriñ di wax ci jéeg yàlla yóbbu la ko ci allah kare ne eh? جماعات تطوف به تعترف يونس مرآها ومشهدها من بين راكب يكف كيف ضرعته وبين سارقة يفزع بسرقتها حتى أتوا حفرا إذا بلدتهم فغادروا بها ظهرا بوصفها سيما في أقوال مجيدا مورا مجيد مورا تقصدنا ويولا nga tëdd benn xalaat yi nga tuwoo wala ci tuwoo gis li woo tëqatoo say ñaari sàkk bi nga xam nga doole doole moom lañ boole sax ah dañ laa muur ba bu doon da ngaa mën a noyyi sax xamatoo foo noyyee dañ laa takk ba nga dëgër bu doon daw am na foofu dañuy wax ni yow teeral naa daw say mbokk ñoo la teree daw amul képp koo xam ne dafa nekk pour maîtriser déet bu ñu yeggee ba tey ci góosu bàmmeel yéen ci yàlla bay na su dee ko daan dem àjjana la mbokk yi nekk ni dal mel nañ aar yow nañ mu naan waaye yàlla na ngeen xalku yàlla na ngeen dee gaaw na ñëpp waaye mu dimbali mu xëy ci man kat maa ngi bëgg a dem ci xéewal yi may xaar lu tax ma wax loolu même yàlla bi ne nag ci naa fekk li muy sukkandiku tàmbali ci àjjana bu ko defee ñu lépp ay bokkam moo tax yonente bi ne su dee néew da ngeen ko am gaaw leen ngeen suuli ko ndax bu dee ku baax la yéen koy def ay gënaa laa waaye bu dee ko safaan bi nag ñu ngi yuuxu yuuxu yu nekk te ñu dégguñ ci dara lan lay yuuxu yaa waylaha ay tadhabuna bi ma ne tey ma ko tey ma toog ku ngeen jëmal man ndax boo fekk na ñu faal gis na ay xeeti fab ak ci jàppalaale ci njàngoo yu ñëpp yoo xam ni la la ko nit ki ci mbugal yàlla rek moo ko xam foofu moom toujours duñ ko gis ndax du ko dégg loolu nag xam ne ñu ko dugg duñ ko yóbbu te ñun duñ ko mën a téye ndax bu dee soxnaam moo ko gën a jege dugub na ko bokk moom benn laal bu dee bàyyi la ci kër gi même mu taxawee kër gi fanaan ci kër gi même boo ko alee fanaan kenn soxlaa ko kon su ko defee moom ma ngay muur ma ngay wax sa kare ah ma tax suñu borom subhanahu wa taala wax ni laa tad'u al-yawma thuburan waahida wad'u thuburan kathiira xam ne parce que rek yow te dem doy bu leen yow yu bari ndax li nga yaakaar la lay xaar moo ko gën a def borom bi subhanahu wa taala mooy zalika ma kunta minhu tahid loolu borom yooyu nag di ko yeexantal suñu borom ne àllaaxira wa jaa'at kullu nafsin ma'ahaa saa'qun wa shahiid bu ñëw àllaaxira xoolal doomu aadama yi tey bu ñu toogee bay natt àll bi naan Sénégal am na ay doomu aadama France am nangam fii am nangam nga boole ay wallahi balaa nga ñëwee ba juróomi million yéen yàlla dina ne baytu ma amul ci asamaan bis bu nekk juróom-ñaar junni malaaka sept mille malaaka loolu chaque jour bi laay doon kàttan ba at na ko ba tey sept mille malaaka par jour ñaata la loolu fii mënu ko bind sax mënu ko bind déedéet loolu jotewut ak malaaka yi ci armée boo ko ñaari malaaka yi bokk nag malaaka yi nga xam ne ñooy àndal bokk nag malaaka yi ci jógal yàlla wa ma yàlla lu dul dara rek illa kaay am na ko lu jiitu ko jëfee ak ko jëfee ñii ñaari malaaka la ñii ak day jëf wala la xam malaaka dana ànd ak yow ah te ñu ngi naan la xam ne ko fi bokk na ci min haaya ah, yow xanaa dana ba yow xanaa waaye loolu dina tey yow loolu naa ndax boobu amana ñi ko amul jëf ñu ngi oyof ko ëmb bu jëm àllaa nga xam ne dund bu ñett la ma war a dund yow comme ñu ngi am ñu ngi xoolee ba nga xam ne bu doon dundal moom la ñaari fan boo koy naan muy jeex bu doon ak lekk la nga xam ne ko benn jour sax mënut laa lekk weer ak nekki malaaka yi nag ñu jàpp ne naka la ñu def ko ñu ko ne woon yow la ñu def def ci ko yow ak ñi nga fi dund lépp loolu ak yàlla ak yàlla ñoo dal fa kasat na am ka di xooxa yàlla ñu kii na ci xool ñi ñi nelaw bu ko yàlla mu ne ci xool bi muy yow kii naa ci sa xool nit di gëmm bu ko yàlla muree mu dëkkee kiiraay bi taxoon nit ki contrat mu àllaa ya dëgg-dëgg suñu borom muri ko nag léegi léegi dana yàlla yi dëgg la fa basaruka yawma hadiid nga bi dafa ñaw dafa jot lu mu doxal tey mu xam ko waaye est-ce que dana ko mën a jëriñoo déedéet ndax wala si nga mën a suñu borom ni fa basaruka yawma hadiid xas ah, malaaka daan ni wa qala qaa'iluhu suñu borom malaaka mu ni haada ma ladayya hadiid ah fi ma dénkoon ak yii suñu borom ni hada ma ladayya atin fi ma nekkoon mi ngi indi naa ko ay jëfam mi ngi nii léegi bind naa ko am dara la lu man laa yubaadiru sagiiratan wala kabira illa ahsaha bu ko defee malaaka bi daal di ñëw suñu borom ni alqiyaa waaye bu ko yàlla xoolee ci ay yërëm baax bu gën a digal nañ ko tànn sabam moom it daal di sabal tax nangu la waaw nangu la kay parce que dañ koo téye juróom-benn numéro yoo xam ne yëpp ko kulla kaffaar weddi tax yàlla woon ani ku mën a jiinaat la man naa am lil xayri maamoom du ko def te kuy def mu tere la moo xajal ku jéggi dayoo la ci teew atiin def ko bàkkaar ah man naa am lil xayri moo xajal muy kuy weddi la ba pare li gën a yëngu lépp mooy alladi jaala maa allah ilaaha moom daf daan jin day jin ci keneen ku dul yàlla ndax jin ci ku dul yàlla mooy li mu la doon bu ngeen gëm ko xaw ma paase ci seen kanam lu xas loo xam ni mbooleem lu ngeen gis moo ko gën a maal kon su ma leen ko waxee ngeen xam ne dëgg la ci man ma dee seet seet gis ma lu gën a maal lu jiw lii kon yàlla topp na ma gis ko wax moo tax yeneen yi kuy gis ñu gis yàlla wala ma gis nga ñamalkat bi lëkkatal wan bi moom tam état yaat dinaa yéen a amati ay léegi ñu taxawaat ñu bokk leen nga xam yéen dina ku ca dem quarante jours dañ ko dund yàlla du faale tey jii muy tànn fële. ñu teel a jox tàngaay ko wax dëgg abu ma yaqul laqad kafara man unzila ala Muhammad bu xaamakat jabarkat seetkat ila axir ak ñu ko mën ci tuddee bi ay ni anwaayihi wa wasaini yooyu yëpp yéen bi nee na su ko def léegi nga xam ne yàlla jeex di nga julli ñeent fukki guddi ñeent fukki bëccëg yàlla du ko faale du ko nangu bokkaale ko ci yàlla boobu suñu borom ni mi ngi noonu fa alsiyaahu bil adabi shadid kàbbal ko ci mbugal mu metti ni kooku yàlla du am benn yërmande ci moom lu tax ndax yàlla ñeewal ci jiwu dem parce que ci la yëkkati defal la gàncax bi defal la asamaan bi defal la suuf bi kon tey ci yàlla yi ko defal yëpp kon nga jàppale naan ci gëm suñu borom defoon na lam war a def wala lam warul boppam waaye kii la jàppal naan ci gëm xoolal xëy na rabbana ma abqaytu su ko defee nit ki ñaari xarit la am kenn ki ab malaaka la jaxas la ko yàlla ba dem yoon kenn ki ab saytaane la mu ngi yàlla ba na maa ko bay kii man tam ko de mu doon saytaane lu ñu wax mu doon jiw ko sànq wala ni jaara bi bala ñu bàyyi kooku wax mu day moom su ma doon jox kooku xel mu mën a xalaat xam ni lii ab jubati la jaay jaay la te moo ko moo doon moom mën a mën la su ma mu ngi dee te di sax seen wax la du mu la sax sax du mu jokkante yi ngeen jokkale seen baax la du mu laa taqtasimu moom kenn wax dara li nga xamante ne may ngeen wax wax dëgg xasee suñu yëngu bi wax yi yóbbu ci ñëwoon na alxuraan bi dégg ngeen ko xaalis bi dégg ngeen ko jàngale yi xam ngeen ko tere yi xam ngeen ko lii lañ ko daal maa ngi def dara xaw na nañ bu fi kenn taxaw ñu espérer yi man ne yàlla tax na yàlla waxoon biir biir sa soppe wa ma alaykum la ilaha illa yàlla toll ngeen jaamam suñu war mooy nag liggéey ko ne wala mu li jahannama alayhi salat borom bi jël nit di ci bëre di tànn di ci bëre di tànn ñaata nit ci nit ci milliards yi doomu aadama yoo xam ne waxuma ba doomu aadama yi soo ko tey sax loolu firnde la kenn du am ku dul yàlla waaye ci jamono bi ñuy dund rek su ma di xëpp rek di xëpp rek ba doomu aadama yi seen gis yi dañuy jàpp ne sawara fees na yéen yàlla bi nee na suñu borom dana tànn ci biir sawara ba ñuy dëkk lu kenn la li ko teg ci biir sawara ñu yëg mun a xop xop xop suñu borom naan ko est ce que doyal na mooy joxe nañ ma si boo amee loolu ñoo leen dañuy dugg dugg ci moo tax yéen bi nee na suñu borom nee na yàlla dana feeñal safara bi ak jinnati wal naas àddina mu fees ndax ku fees ku fees ku ne xat te àddina warul xat yéen yàlla nee na yàlla dana sàppal àddina sàppal même ñi jeex yàlla sax ñi leen di def sàppal àddina kon loolu suñu borom ni yéen waa àddina ngeen leen lahum fiha ma yashaa'uun lu ngeen bëgg ci àddina am ngeen wala lay yàlla di tey am na doom ci yoo xam ne ñu gisu leen ko suñu borom ci mu jëndal aar te sax xamu ci mën a mooy ca wax yoo xamante ni daanaka mooy lubbu saa bi mooy inna fii daalik gis nga lii ngeen dégg la dikra ak waaloon tuuba dellu gannaaw la dikra ak waajalaat sa bopp la dikra yi di xoolaat yow yaay kan xam ni kat yii la nit ñi yow ay day nekkal de yaay jiw yaay nangam gis nga nit ñi yàlla du la àtti mukk ci ñoom li ñuy wax ndax nit ñi sa mbubb bi dañuy dee xatta laa ngi yow neex ak sa sa sa jëf yi ak sa xaalis bi ngay maye ni ñu jàpp da nga loolu la ñuy àtte yàlla du àtte ba wax nii ba wax nii lay àtte gis nga nit ñi li ñuy wax bu ko commencé yàlla du ñu allah dana mën a ñi ñi kat ñeewal nañ nangam ba sukkandiku ca loolu loolu ku mun moo koy def waaye yàlla du ñu àtte wala mu xam ci gis nga nit ñi bu naan la yaa baax yaa naan ko yow boo xam nga na baax yow yaa taxaw jàkk jeeg yaa yooyu am solo xam nga lu am solo mooy li yàlla xam ci yow te loolu la lay àtte kon kenn ku ci nekk mu vérifié waat boppam ginnaaw nga déggee saa bi suñu borom ne inna fi dalik lii ngeen dégg lay la dikra ak waaru mu ngi nii liman kaana lahu qalbun min koo xam ne xolam baax na aw alqa sama wala mu kàlli noppam di déglu moo ko sëriñ ci nekk ñu kenn ndax nit mën naa toog nit déglu kër kan naan la fenn moo tax ibn alqayim mu ni su fekkee gàncax gi su fekkee jiwwaay yi baax na tool laa yi baax bi tooy na fekk baykat daa ngi tawar am doole lool jiwu sax rek mu mën a toog alquran jaay ji waa ak suñu borom la jàng nañ ko noppi daal di koy dégg ni mu mel kon lool mooy mu xàbbi ci xol bi soppi ñu ci xaar ñu ngi ñaan suñu borom yàlla yàlla boole ci nga xam ne alquran dañu day suba dina day ngoon yàlla bu ñu suñu borom boole ca li nga xamante ni ñoom ñuy kàmp la ñuy doon di récc la ñu bu àllaaxira waaye yàlla yàlla dimbali ñu root suñuy bagaar ba mu féet ak yiw lenn lu koy yàq mu dem rek suñu borom allahumma sunna fawqa al ardi taxta al ardi wa al ardi alayhi ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر

البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ قبل أن تنفذ كلمات ربي ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم